coração. bu dee fii nag bu dee fii xaar yi leen di di leen accolade di leen wax viens pousser moo tax dañ koy togg rek yàpp bi ñor ni gis nga ni mu ñoree pay moom laa sotti woon meew sax jël ndaa rek ceebu keccax la togg xam nga ma nga ko yar jël pee man ma dem togg ay ceebu pay laa rek jël jël meew ma di ta sotti foog ni cere tam xarit laa dama juum ko tam dama réer xam sama zi bi balaa nga am ma jël la boo xam ne da nga togg ceeb ma togg ceeb. ma cere bu mel ni ma borom garaaf. boobaa nga yuuxu xam ne maa mën a togg cere. mën a togg cere pendo. cere tam xarit dama ko mën a togg. seki. seki non non jël ko rek. yow jël dafa tàng waaye da ngeen a defar fii ay mbaxalu Sénégal. <laughs> namuma senegal de. non damay ñam nii rek. man indi ma zi damay naan. zi rek damay indi. bisaab wala gingembre. Euh, ci ci ci ma doon ci ma am nee bisaab. ci ma am nee bisaab ah Abdou Khadar bisaab la waaye Abdou Khadar temps may ah. ñëw Sénégal réew mi day sama càmmiñ may xaalis Abdou Khadar bi may may dara. quiche laay fal suuf soirée bànkat bi waaw ma ba fi ne nii nag su ma paree soirée ba laa jëm Bakar de la Pape Diouf wayoon daan ko lan Bakar jërë jërë baa déedéet wayu ko lool da ko def Bakar mbal ñu dellu ngay wel musique amul coow li dongul la mbalax ba mu neex yi béggee bu leen di sonal géej njaw du mel nii la yàlla noppi na Bakar nag tey mooy tëgg soirée maa ko war a baax baax mënu ma ko tur bi noonu laa mel damay dëpp tur bi seen dëni euh, seen dëni seen seli seen bi nekk seen dëni seen ko xamulee rek ma wax dëni tux bu njëkk ba <laughs> ah di connaissez ma jox jinjeer nag bu ma jox jinjeer yéene woo ma jàmm su may dee jinjeer xanaa damay naan jinjeer bi damay naan jinjeer bi da topp bari naan miiri jinjeer jinjeer jinjeer romb na Abdou Khadar ñi ne sama neex gi léegi la man dama naan vocal ñiy jooy ba tëdd laaj ma awa géej yàlla bu la kenn tooñ nag ci turu ba pare may ma sang ma rek ma ñëw géwél mbaay na ma toog bi 10 ans mosuma xam hôtel mosuma xam kër benn kër kii ak Gueule Mbaye ak Sofia kese laa xam. ah seen kër ngay dal ni. ñi ñoo defandoo lépp Sénégal. waaw moom mii waaye géwél mbaay ba xam nga leen dafa daa pànk daa pànk a pànk daa pànk xam naa ne boo ko tooñee géwél mbaay daa pànk dafa bari doole day ba pare doole ji dafa bari da lay rëq nga toog policier yi ñëw mu dala doon yëkkati far nga daal xelal nga ma loolu ah. biri bi dem daa bokk ci restaurant bi. biri bi doon eh, waaye yow ñii ñam la. togg lawbe mooy togg li. lawbe la. al ñaxeen gàlle maalaw al ñaxeen gàlle maalaw. mais li ngay li ngay lakk nii jabaru jël ko awa suuf kii bu bu ma bàyyi ma man li may def mooy bëgg a yóbbu laa xale waaye li neex na a jibi leen toppee murtaat man dibir man murtaat laa topp dem Thiès waat maay dem Touba escale sama oto lakk dibi lu jox ma ma ba ci kii murtaat ma ne leen man waa Thiès murtaat boo dematee kii lakk nee ko man xaritu njabaru jëwlin la waxaloo yàlla baax na fi ne nii ngay def ba xale yi di wër Thiès naan salaama ana ñu bari <laughs> ana jëwrin boo leen demee Thiès bu ngeen taxee ci rond-point bi salaamaaleykum na ngeen def ana jëwrin alhamdulilah maam yow doon sa maam nee na laay laay la laa ko ñu sa diggante ko yàlla kii mooy sa jëkkër yàpp bi bëgguma ko mbàkk bi moo ma gën a mbaxal Sénégal laa dëkk ñun dañu bëgg mbaax <laughs> ñu bëgg dama dem dama dem dama dem euh, kii euh, nu mu tudd Nantes Nantes sama benn xar lébu la Bappa dafa baax sama xarit boobu mu defal supp mu jënd ay yéen dugub ma ko baax ba itam supp bi xaju fi nag mu ne ma eh bii bii bii seen nag yooyu di dox bi tàng bi bi moo gën a gaaw a ñor ñaam bi yeenu moo gën a gaaw a ñor ñaar saab da laay naan na ma Sénégal man Sénégal ci jëm xamuñu sax nag sama valeur ah, ah, ah, xamuñu sama valeur de Sénégal xamuñu sax nu ko am naa xam bu la mën a fa dawal dawal dawal xanaa ñoom Sofia Sène may fat Demba Jibi Jibi Jaxate Jibi Demba day dem bi mu njëkk a dem Mali ka sanga Jibi bi mu njëkkee Demba day dem Mali comme lu mu bëgg a tukki mu ne dem boo demee nga daw moom xam bu demee kii dina lay dugg Jibi naa ko Demba boo demee Mali nga daw man ko xalaat ko démb bi mu ngi gas waaw dawal. mu kenn du ko seetal. kala yow maam mi bu dawee ba la jëm. man de bu ma dawee maa yëngal leen Sénégal ay tax dóor ma ba ma tëdd. sama entreprise ku ma ku ma entreprise. su ma dawal sénégalais du ñu xam ne damaa dawal dañ naan dañ ko naaw tax. Ah. sëriñ bi boo xool ci direct bi dëgg la dañ ko naaw Mame Ndiaye naatam ma daw fenn. ñu xamal loolu moo waral ñu ne la borom dama am naa émergé man damay def groupe Belgique. wuyu ma yow su ma dawee dama émergé. baxal bi sax na. man dinaa daw moom. man ci tournée bi laa jaaree daw. benn kooku lan la la laaj. xoolal kii li muy def. xam nga lii tam nan waxante dëgg lii lii tam nan waxante dëgg. nit mën na fee wàcc à tout moment man du ma dawee. wuyu ma su ma dawee di nga jël fi may liggéey. nga daw laa wax bu ma ñibbee ci Sénégal ma ñëw fii di nga làq ni man ba wax may liggéey man mi sax dama bëgg daw man ci tournée bi laay dawee Xaadim soo ma gisulee rek daw naa soo ma gisulee ci tournée bi daw naa <laughs> maa ko damay daw mu naa ma boo dawee waa Thiès la soxla de damay daw de bi daa jaar daw yowel nañ demal rek demal rek kewel gunge ma rek ba ci suuf bu <laughs> suma gis bii mbax xal mam boko pada mainnya, ko damay ñam mo ne won damay ñam mais da ñi da lay tegal li nga am appétit kemarin. yaangi ni gisoo ginaar dañ ko mari def bakan ba bakan ba ñew leen mi ngi taw de da wala ñu burgeul fa la joge ha ñu ñom leen ñom yow ñu déglu sa sa wax yi nga wax. man bi ngeen ñëw man bu ma jógee nii di ñëw ñoom baax na ñoo toog ak jox reer indi reer. ci jóg reer bi ngeen jëndal. ci jóg reer ak màdda. man may départ léegi di ñëw fi di leen woo ñoom ñoo ngi fa hôtel ba di reer fii leen jëndee luñ leer. Ah waaw waaw de moom mooy bomb fi ñe lekk ko mais rek bëgg. li de mu jeex. ah waaw dama jaaxle ni nii nii nii màndi na maa ngi yaa tap tap ma jaaxle ni ma toogee musuma gis bi mbaxal bi sax ma jox leen di bi yéen ñi boo xamee wax maa ngi am na Champs-Élysées bi ñu ko yóbbuwoon ci suba ba tey moom foofu la foofu nga faral di. man maa ngi changé yaa ngi 18e maa ngi 18e. 18e waaye te boobu ñëwee bëccëg maam. eh wuyul adresse de wuyul adresse de. ma ko wax de CCV. ma ko mën a wax CCV. 26 26 CCV. Falo, professor! doole maam fayu ma ko de da ngeen ma koy may ji bi fayu ma ko da ngeen ma koy may mënu ma nekk sama traité li ñëpp di ma seetaan may wax ba pare bu ko fay du ma fay defal ma fii dama ko fay adresse bi leen 26 rue Doudou ville ville 18 18 laaj nag cappaajul lañ ko wax cappa mën nañ golori ala ku mane man gareng man nga dama bëgg lekk mu nah. suba ko gewel eh xam nga ray ba nga sa sa nga ne bon sama yai deg. li salaam ne sama yaay booy neexu ceeb lu mu naaj ko man sama yai ne lu mu naaj naaj nga gën lay sama yaay eh, moom mënu togg loolu ñëpp ko xam sama yai, tabaski nii ko rombee dem sama kër bànjan mu lakk lakk bu xam bu ko noonu la koy lekkee mënut mënut mënut bilaay mënut. Faal fu ñuy dem. sa yaay moom dootu la sama yaay mënul. fu ñu dem Fatou. complexe wu ma ko wax. mënut toog man ki ma yar mooy gaynde mën a toog moo tax damaa mën a toog. waa ji mu gis ma. man su ma rosee nga yuux. ma kenn pare yàlla damaa tëral damaa teel a teral. yàlla yaa ma bëgg. nekkuma di sonn di toggalaate. gëwël baay xam nga ni yàlla bu la teralee rek gëwël baay. yow gëwël baay foo leen dem mu nekk senderi. ripoterie. senderi ripoterie. ci bëri na ay rii nag. <laughs> lii yëpp ay tubaab yàlla bu la teralee la teral na la xam nga mooy lan xanaa xamoo nit nekk ci kër ba toggatoo rek yàlla teral na la. togg di nga woddu sër di nga niin di nga rosi di nga togg di nga raxas sab man yàlla teral na ma nii rek laa def nii. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. ba pare ñoom yéen ñëpp a ngi toog di ma xool fii ne mën naa wax ba 5 heures du matin ma may waxaat ba 6 heures du ma sonn noonu laa def lii bu tàkkee mën naa wax <laughs> dama sonn. dama sonn. ñi ko xawul affaire dafa def. waaw bilaay kii xam na ba fajar ñu ne tëdd na du ñëwaat bu jékkee ñëwaat. commencé waat histoire yàlla bu histoire ak keneen commencé waat ñu ne Mame Ndiaye ñëwaat mais eh, Mame Ndiaye tëdd na. su ma histoire ñëppay taal ne ko Mame Ndiaye mooy Ngoné war nañu dégg ndeysaan. Fallou sëñ Fallou yee ah la teral ma la dañoo eh, ñi dañoo xuloo sama jabar bu ma njëkkoon tax ma fase ko yow ay xarit lañ ma tax keneen ñoom ñëw so def hôtesse ñëw solal koo xam ne kooku feebar wala ngoo ne ma ñi man la ñuy ñaawal désolé ñooñu désolé ñooñu désolé ci la ëmbee sëñ Fallou sax eh, nan jam maam kii Pendo te bendoo ginaar gi saf na nag waaye nañu dem nag ko fa yow eh ana sama kii bi bisaab bi amoore waaw ñu ne. ba pare nii ngay nii ngay nii ngay sol sa zip su gàtt si gis nga nii di riij naan nii naan dama sonn. waaw sonn. saa nii. ah. ñu dem waay yow Bakar heure bi jot na jox ma bisaab. baal ba Belgique moo dàq ñu gaaw bu lépp. non ah, bàyyi ko mu dem rek Belgique moo gën a jege. non non Belgique bàyyi daal. soo ko mënee ma ne ma ne. demoon naa benn passé boo ma ne ma ne ma ne soo ko mënee ma daal. soo ko mënee ma daal Belgique fii la soriwul moo gën a jege fii ñëpp oto la ñuy demee. Espagne daw ma de bu def Espagne dafa dëng. Belgique bi mooy la de da ngaa réglé ma ko. Adama jëloon na affaire yow. yaa dugg ci Adama de. ñu puus ngir nit. kan dama ñëw rek jàppale te yàlla tax. waa dëgg la mais def ne mais mais. non non def ma dara

boo ko fi def saa pesem laa lay laaj amoore ah, yaa ngi may xool ay bébé est-ce yaa ngi may xool man bëggeel dama gaaj man bëggeel dama gaaj <laughs> aywa man bëggeel dama gaaj man bëggeel dama gaaj restaurant bi damaa koy dafa mel ni su la bëri nga man bu ñu tëggee baara mbay ji ba sama jinne ji dina génn maa ngi naan bisaab rek te sama jinne ji bëgg ruus ah maa ngi naan bisaab rek. ngeen saro bi bugul la. fi nap ndeke amoore da ngay gaaw a jooy lu bëgg te dofu caako ba ak bëggam dafa des yow mi may tere billaay man nga reer man bëggee dafa gaaj billaay dafa gaaj ay bal ay yéen xamoo leen àddina direct baa ngi egg 5000 waaye man dama koy dagg nee na ni 4000 jëlal ay bëggeel dama gaay ay bëggeel dama gaay yow bëggeel dama gaay ay bëggeel dama gaay ay laaj sinap mbëggeel bu la jàpp da ngay gaaw a jooy lu waay bëgg te dafu ca booba ak mbëggam dafa des yow mi may teele reer billaay mat nga reer yow mbëggeel dama gaay nag su ma doon way de maa ngi mel ni daakaane. yéen. kii bu tëggul dina way. kan la kii boo si fàlloo bëgg am ay fàllu ma tay yow. wiiri wiiri jaari naari rakkin. tere naari neexul. bëgg wiiri wiiri rakkin. amoore wiiri wiiri. wiiri jaari naari ah. tere jag <laughs> tere jag. ay wiiri wiiri wiiri jaari. <laughs> wuy leen lii wuy leen lii. jaajëf tubaab bi tey la ñuy koy daaneel. yaa may daaneel. moo koy daaneel. profilam daa may daaneel. yaa may daaneel. STM daa may daaneel. sinabam daa may daaneel. yaa tax fu ma neex jaay. jaay su sa séri laay dem la. man ñaama eh, eh, daane eh, géwél may da may daan Fatou Mba pare nga ay jowa Fatou Mba pare nga ale kembi yaay ma pare ngeen Fatou waaw siri paa bi Mba pare nga siri paa bi waaw Fatou Mba pare nga waaw siri paa bi Fatou <laughs> Mba pare nga waaw Fatou Mba pare nga waaw Fatou Mba pare nga waaw Fatou Mba pare nga Nakakabolo. Fatu ya vidane. Ñu démalé. Séri papi. Non mais c'est. Ari commandé ici par. Fatu commandé. Eh nañu fatu ñëwal. Bani dane. Fatu Gambie bani. Ay, ya fatu Gambie. Ay, Gambie fatu dane. Wow wow. Wa ya fatu. aw kaasu Baba Linguère xëy dañ laa may may ma xam nga nag xam nga ñu wayaanu géwél balaa neex séddale bi jot rek leen géwél nga géwél laa rek leen ba jaw jaw may dem may ji jëlee wax nañ la nga téye ko rek leen wax nañ la bu la joxee nga jox déedéet du ma ko joxee du ma ko joxee du ma ko joxe Fatou lii boo ko weccee ko Sénégal. 100F la et cas yi 100F la 32 700. 32 bi nga koy jàng maa ngi lay maaree. waaw 32 700 aywa yow commandé ñu dem. ay commandé ñu dem Fatou commandé ñu. maa ngi ànd ak yow da ngay wax la ëpp kala. maa ngi yow du ma sëb de. waaye kii du ma bàyyi yow géwél mbaay yow de xam naa ne yow toog géej gi kaay ma xam dama am li ma la toppee noonu la ma kii toppee bàyyi ma géwél ah. woo xam naa moo nar a neex séddoo séddoo bi séddoo géwél yi fi mu ne de géwél laa. ah man géwél laa nekk ko bandum mais dama ne France bi ngay ñëw dina war a wax boo demee boo fekkee koo xam ne. moo la fekkee bu la Yeah, yeah, vai fato ya ba kwa dele de vai fato aí. Ah, tá minhona. Fala, Fabrício comanda disso. Fala ele, né? Ficou fofo não, agora ele xam naa ko bàyyil ba bëgg leen yoon ñu programme ah. Abdou Khadar mi nga may wax sama càmm lu baax lii. man de di njël bu ñaaw fii la musuma gis lool ba pare damay fay. yow am nga kii am nga am nga musuwaay. waaw kan dem waay. waaw waaw may ma